صل على أبيهم والآل وسابه ولسجف صالي وكن سوى مني من الدرار ولا أجري من اخترار وقرار ولا أجري ربي وعلى الدار هنا وفي قد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خبر بلا يا ربنا يا ربنا di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax si jotaay bu am solo bi di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te muy ak wér waaye di ñaanal suñu jëwriñ suñu kilifa si liggéey bi di sëriñ Habibullahi Mbàkke suñu borom may ko ak wér dafa ko kàttan ak tawfeex ba lim yéenee liggéey Serigne Touba si dëkk bi mu defee ko nu kawe njortam ak ñun ñi ànd ak moom di siyaare mbooleem ñu tedd ñi teew fii ñëpp di siyaare kilifa yu góor yi fi teew waaye di siyaare soxna yi baax a baax sama soppe yi di bég di kontaan bu baax ci jotaay bi nii mu teddee nii mu selle ak nii mu mel di wax ne jotaay bi li waral jotaay yu leeral la ak jotaayu soññante ak jotaayu ñaaxante si liggéey bii nga xam ne mooy liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo lañu boole ñun ñëpp ñu si sàkku ngërëmu Sëriñ Tuubaa buñ gisee nii jotaay bi amee nag day mel ne tey la njëkk ba léegi waaye daal sëriñ bi xamal ne ñii toog ba nga wootee keroog nag ku ma bokkal pas-pas Sëriñ Tuubaa ki nga xam ne la mu yëg Sëriñ Tuubaa yaa ngi ko yëg ñii moom li nga yëg moom lañ yëg lii la wax moo leen xuri muy bëgg Sëriñ Tuubaa mooy am yéen Sëriñ Tuubaa moo tax ñu takku seen digg laxasaayu bàyyi seen yitte yëpp ngir liggéey sëñ Tuubaa dëkkam bi. maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew yëpp kilifa yi fi nekk yëpp maa ngi leen di ziar ak soxna yi fi nekk yëpp di leen eh, ziar bu baax a baax di leen jaajëfal nag ci coono yi te xam ne eh, li ngeen def tey moom yombut xanaa nag di leen sant nag bu baax ci coono yeeg yëpp rek waa eh, li nga xamante ne nag ñu am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci Touba ca kanam nekk fa ay jàmbaar lool. te duñ leen faral di tudd nag ci lu bari ndax ñoom sax sàkkuwuñ ko waaye dafa nekk ne ah, di leeral nit ñi tamit dafa baax ndax am na ñoo xam ne sax nit ñi mësuñu leen a gis waaye ñu ngi leen dégg ku ci mel ne soxna Njaxat Mbàkke moom sëñ Abdou moom jàmbaar la lool ci liggéey bi weer wu jot lu mu dajale mbooloom lu mu dajale lu mu toll dina ko indi ci Touba ca kanam wees sa ko te sàkkuwul sax ñuy tudd turam fu mu toll ak soxna Asu Mbàkke Saam mu sëñ Moustapha Bassirou Daaru Minam ak soxna Léemaloo Daaru Xudóos ak soxna Fatma Dieng ak soxna Mbeen Ka Daaru Minam soxna Amina Diop Talib Bees soxna Ka Cayle Kayel soxna Fañ Njaay Saam soxna Ñaaw Mbàkke soxna Mbeen Mbàkke soxna Asso Waalo Mbàkke soxna Maa Ami Mbàkke soxna Moomi Dia soxna May Silla soxna awolo soxna maam jaara mbay soxna fat silla soxna fat say faal soxna fat sëy soxna maawakan soxna maayisa mbàkke soxna adama badiane soxna ami soxna maam faati dieng soxna mbenn lëy soxna mbenn mbàkke gaar bu ndaw soxna musli jóob bari na nag ñoo xam ne weer wu jot ñu ñëw verser seen àddiyee ci Touba ca kanam bari na ci mbooloo mi fii ñu toog ñu bari nag mënuñu leen a lim waaye seen Pastef ak seen liggéey yëpp sëñ Touba gis na ko ñu leen di ñaanal rek lépp loo xam ne si ne yéen a ngi koy eh, def ci liggéey sëñ tubaa bii yàlla na leen ko sëñ tubaa fay ci barki borom Touba di ziar bu baax nag soxna Mbayang Jum ak soxna Bindu Mbàkke ak soxna Fatja Mbàkke ñoom ñëpp di leen ziar ak soxna Bindu Sarr ñoom tamit jàmbaar lañ lool ci liggéey bi gis nañ seen taxawaay lool teyit it jàppale nañu lu bari ci liggéey bi. di dénk kilifay yi Touba ca kanam bi nag ñu jàppale suñ mbokki jigéen yi bu baax nag ci liggéey bi ndax sonn nañ ci lool. sonn nañ ci lool te lu ne ñu ngi koy def ngir bëgg li nga xam ne bëgg nañ ko ci Touba mu jëm ca kanam saa su nekk nag ñu ngi koy dox ñu ne nag lu luñ ci mënit suñ kéemtalaay kàttan nit ñu ngi leen koy jàppale waaye am na foo xam ne suñ doole fa la mën a yem yéen ñi nga xam ne yéen a jiite liggéey bi tamit ñu ngi leen di ñaan ngeen jéem a jàppale jigéen ñi ñu gën a gis seen bopp daal ci Touba ci kanam baax na maa leen di jaajëfal. gannaaw suñu nuyoo itam ñu ngi leen di jotal nuyoo soxna Fadja Mbacke bu sëñ Abibulahi Mbacke imam muy nuyoo boo xam ne mu ngi koy tàmbalee ci kilifa Touba ca kanam muy sëñ Abibulahi Mbacke moom sama dal Fadal. waaye tamit nuyoo boobu mu ngi ciy boolewaale mbooleem collecteurs yi Touba ca kanam yëpp te kenn ku nekk ñoom itam. amoon na sant itam ndokkeel la sargal la ci xam ne wuy si ngi leeral liggéey bi nga xam ne jot na koo liggéey soxna si ne na jot naa jël lu toll ci 160 blocs de Russie yu 1000 francs bu ñu ko xaymaa ci ay koppar mu ngi toll ci 8 millions jot jot naa jël itam ci ay carte de membre toll ci fukk jëmmi soxna si nag li mu versé ci siège Touba ca kanam mu ngi toll ci 8 millions 800 2000 francs maanaam mu ngi versé lu toll ci 8 millions 800 2000 francs li mu fa jot a jël lépp lépp ci Touba ci kanam itam mu ngi toll ci 8 millions 650 mille jot naa jot naa versé itam 8 millions 80 mille 80 mille 82 mille la jot a versé ci seen si Touba ci kanam loolu nee mu ngi koy leeral maanaam mu ngi toll ci juróom-ñetti millions ak fukki junni ak juróom-benn ak ñeenti téeméer lam jotoon a jël ci sées bi lépp nag ci ab ko seetee mooy lam leen amee loon lépp lépp mu ngi toll ci juróom-ñetti millions ak téeméer ak fanweer jot naa yóbbu itam juróom-ñetti millions ak fukki junni ak juróom-benn ak ñeenti téeméer nee na nag mu ngi soññiwaat mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal di soññi boppam tey gën di sant nag ak a ñaanal bu baax nag jëwrinam muy soxna Bintu Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifaam di ab xalifaam di ñaan lu mu man ren yàlla man lu ko ëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe Sëriñ Touba bokki Touba ca kanam nooru daare ni ñu ngi yeesalaat sunu nuyoo bu bokkut bi ñu fi njëkkoon nuyoo euh, di ko tàmbalee ci Sëriñ Abibullahi Mbàkke moom Cheikh Mouhamadoul Fadal mii nga xam ne mooy kilifa Touba ca kanam. kon yéen ñi ma àndal na ngeen xam ne waa bureau bi nee nañ treize millions moom lañ jébbale ñun ci Touba ca kanam kon yéen ñi ma àndal am nañ treize millions ci at mii ñaari at yee jàll 2016 2017 ñoo doon doon troisième bu soxna Bintu Jàllee soxna Mbaye Njum topp ca ñoo ca daan topp ren nag 2019 bi laa xamut ban place la ñuy am waaye yaakaar naa ne góor ngeen yaakaar naa ne fukk yu njëkki moom mun leen cee ñàkk bokk. maa ngi soññaat sama bopp di leen soññ bu baax di leen xamal ne it ci wàllu li nga xam ne yore nañ ko te jébbalee guñ ko nekk na trois millions quatre cent quarante mille mu yore yore naa ko mi ngi fii ci sama waaye mboolem collecteurs yi ma ko jox mu yore bolog yi liste baa ngi nii yaakaar naa ne lépp mën naa leer nañ ñi bu loolu jàllee li ma yore woon ci compte màggal gi muy bolog yi màggal yi ma doon joxe te ñu tuddee ko bolo gi sabar te samay collecteurs xam nañ ko yooyu cinq mille la cinq millions la woon la ca jar wersi naa ko wersi euh, naa ci quatre millions digganteel la ca jar ak la ca doon ay bolo mu des un million boo xam ne incha allah fos naa ko yéene toppatoo ci fan yii jébbale ko loolu it mi ngi ci collecteurs yi kon daal day mel ni ñun yoral nañ Touba ca kanam fi mu ne nii cinq millions yu manqué tuuti yoo xam ne jébbale guñ ko gannaaw buñ jébbalee treize millions ba noppi. di nuyu kilifa yi fi toog yëpp di leen jéggalu di ñaax ngeen baal ma bu baax a baax may jukki di fi soxna Njaxate Mbàkke dinaa bu ma ko sante Yaara Mbàkke ma ko sant bu baax a baax Mbàkke ba di sant ñëpp tamit ñëpp ñi bokk ci Touba ci kanam rek maa ngi ko leen di sant mais soxna Njaxate li siège bi dend ak moom rëccu wu ñu doon dend ak moom ndax wax dëgg fàttewuñu benn yoon rawatina bi su xew-xew yi bu amee lépp day ñëw muy añ yi <laughs> ay yëpp daal dinañ ñëw waa li mu joxe ci année bi 2019 bi mi ngi toll ci huit million neuf cent vingt cinq mill moom la jaay ci reçu yi waa ok jërëjëf juróom-ñetti millions wa mi ngi joxe juróom-ñetti millions ak téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom moom la joxe waa loolu soxna Ndiakhate euh, moom Serigne Abdoul moo joxe loolu xaadim huit millions 925 000 925 000 la soxla njaxat moom sëñ Abdou Lahad versé ca Touba ca kanam. xam naa dañuy far rekk suñu joxee bilan wu Soxna Astou Sam dañuy far jëlaale kàddu gi ñu naroon wax rek mu yóbbaale ko mu doon benn. sëñ Baara dimbali ñu rek <laughs> waaw Soxna Astou di jàmbaar lool ci liggéey bi moom it liñ koy dégg bëriwut yàlla dogal na ci année bi. dugal na lu tolloog 5 millions 824 mille ci biir année bi moom jàmbaar la lool wax dëgg dinay taje dajale mbooloo mu bëri ci liggéey bi xanaa di wax rek ne ñi ngi ziar suñu mbokk soxna yi fi nekk yëpp suñu kilifa yi ak suñu mbokku taalibe yi di wax ne lii mooy Touba ca kanam jamono yee ci ginnaaw yàggul dara ñi ngi doon def kafe Touba Paris café diaspora waaye nag euh, defe naa tey café Touba bi ku ko xool xam ne euh, waa Touba moom toujours ñi nga ca kanam rek ba ci versement yi ñuy faral di def Touba day doubler dëkk yëpp waxuma ay pays waaye ay foo jëlee États-Unis jël Europe jël Afrique foo ci jël rek li Touba di versé ko ëpp loolu nag di ñu xalaat loo ne 2 millions yi ñu wut Touba mën na ko génne 2 millions de murid yi ñu soxla Touba mën na koo liggéey kon jataay yu mel nii buñ toogee kilifa gu mel ni sëñ Abibou dañuy sàkku ci moom rek ci jataay bi ne ko sëñ bi il faut jigéen ñi di liggéey lii ñu dooleel leen sëñ Abibu man Xaadim Diouf mi yore administration tubaa ca kanam gëm naa ne buñ dooleelee jigéen ñi projet bi nga bëgg dinga ko am te duñ génn Touba gëm naa ne biir Touba jigéen ñi buñ leen dooleelee loolu nga bëgg yow di nga ko am ku ci ne ci ñoom mbooloo ne ci sa gannaaw ni ñu yoree liggéey bi ci siège bi ñun siège Touba ca kanam nga xam ne àdduna euh, bi yëpp ñun ñoo leen di gérer di leen di jënti noonu la mbooloo nekkee seen ginnaaw moo xam ne dafa war a am ay loxo yu leen di jàppale ci liggéey boobu ku ci ne ci ñoom war nga am secrétaire bu lay taxawu te Touba ca kanam da ko war a jël en charge kon nag en tant que administrateur bu tubaa ca kanam maa ngi sàkku ci comité directeur bu tubaa ca kanam nañu jàppale soxna yi yor liggéey bi ñi nga xam ne mbooloo dafa topp seen ginnaaw nañu ut ay nit Touba ca kanam di leen fay ñoom ñu leen yor ñu yoral leen liggéey boobu loolu maa koy sàkku ci kanamu mbooloom mi yëpp ci kanamu kilifa gi sëñ Abibu di ñaan ñu taxawu leen dimbali leen ndax liggéey bi ñuy def lu diis la lu jafe la. mboolem ah, seex yëpp ñu ngi leen di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal suñu borom may leen fan wu gudd waan ku wér balañ naa lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa ñu def ko ni mu ko bëggee bañ àggale ko fañ ko bëgg a àggale. ak mboolem collecteurs yi nga xam ne moom liggéey bi ca di ko jàppale ci liggéeyu Touba ci kanam nee na ñoom ñëpp mi ngi leen di nuyu bu baax mi ngi leen di siyaar jàmbaar yooyu nag seen pësteef dafa ko lool ba tax na at mi werse na ci lu tolloog 21 millions ñaar fukk millions ak benn am na lu des nag loo xam ne nii xëy na soxna si mooy gën a xam lim bi incha allahu rabbi bu tollee ci leeral ko des na ko leeral soxna nag nee jox na loxo ñëpp ngir fas yéene ànd ak ñëpp ci liggéey liggéey liggéeyu sëriñ tubaab bii di liggéeyu Touba ci kanam nee na mboolem képp koo xam ne nii bokk naa ak moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye mi la ci woo nga ñëw jàppale ko ci waaye rawatina nag waa kër Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba ndax ñooñu defe naa ne mbiri Touba ci kanam moom kenn dootu leen ko ndax defe naa ne lay xew foofu la njëkk a ndax bañ jëkkee dikk foofu dafa teg première pierre. sëriñ Mountakha ñëwoon di ko teg si ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar dafa naa ne loolu ñëpp ràññi woon nañ ko xamoon nañ ko ca bañ koy door rek laa ne leen ba ba baas ba njëkk baas si pénc ma di ko tàmbali laa ne leen fekkee ñu ngi laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam ca loolu mooy yi nga xam ne nii mooy yoonu murit di laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam incha allahu rabbi nit ñi danañ ci góor góorgóorlu ndax buñ xasee gis lu jóg lu yëkkati ko lu màndargawu ñooy soññ seen bopp waaye kenn dootu leen soññu ca loolu defe naa ne waaye Touba Lansar gis nañ ko ñoom defe naa ne ñu neex a soñ ci Touba ci kanam la. siyaar ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kii turu Soxna Mbaye Ndioum mu ne mu ngi tàmbalee ci nuyoo bi ci Serigne Mountakha Mbacké mi fi nekkal Seexul Xaddim di ko ñaanal gudd fan ak wér di siyaare Cheikh Abibullahi Mbacké mi fi nekk te njiitul jataay bi te ñaanal ko mu gudd fan lool te ànd ak wér li mu yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu defee ko ni mu ko bëggee. mboolem li nga xam ne jot na ko fee liggéey ak yéen nga xam ne yéen moo gi ñoo ko àndoon ngeen di ko jox seeni xaalis mu jëm si ci Touba ca kanam mu bu moom lañ leen di demal ngeen tudd ko nombre de blocs yi nga xam ne jëloon na ko mi ngeen toll ci 528 blocs juróomi juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti blocs moom la jot a jël loolu soo calculé mi ngi nekk vingt vingt six million quatre cent mille mu jëloon dix cartes de cinquante mille boo ko booleeg restant total bi nga xam ne moom la fi amee wat mi ngi versi 27 millions 115 mille ñaar fukki millions ak ñett ak ñaar fukki junni ak ñaar fukki millions ak juróom-ñaar ak ñaar fukki junni ak ñett loolu mooy li nga xam ne jox ngeen ko ko ci loxo mu teg ko ci euh, waa ci kanam mu leen ciy sant leen ci gërëm ngeen xam ne 1000 francs 1000 francs yooyu ngeen joxe bu leen ko xeeb ndax 27 millions kooku mën a dajale ci ay 1000 francs 1000 francs su la yàlla joxee wërsëg bu def lu ëpp loolu waaye nag ngeen ne yéene ji am ci moom ak njàmbaaram moo ko ko may ndax it ànd ak nit mu topp la yomb na waaye nag mu yéene la nga am ndam suba ngoon loolu sa njàmbaar mooy tax loolu nag moo tax ñu ànd ci gannaawam ñëpp di góorgóorlu ci gannaawam xëy na jataay bi moo waaye amoon na yéene tuddi ñëpp ñu ngi jégaloo salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbooleem soxna yu tedd yi fi toog di ko tàmbalee soxna Bintu Mbacke moom sëñ Abibu di suñu bàjjen di suñu lépp di nuyu soxna Njaxan Mbacke moom Cheikh Abdou di nuyu soxna Maawa Touré moom Cheikh Abdou ak soxna Jatu Baara Mbacke moom sëñ Alaaji Baara mbooleem ñi ma àndal liggéey Touba ci kanam yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ndax xam naa ne su ma limee damay juum loolu moo tax te dafa xaw a guddi nit ñi fi ñu war a ñibbi dafa sori waaw di leeral nag liñ fi jël ci ay bloc ci 2019 bi di 400 toll ci 475 bloc yu 1000 francs war a nekk 2 millions 23 millions 750 cent euh, total reçu illimité yi ñi ko ne dañ doon ko jaayante mu toll ci 9 millions 98 mille 875 ak un bloc de reçu de 12 000 mën a toll ci 240 000 soit au total 34 million cinquante mille 200 francs CFA loolu laa versé ci at mi. waaw 34 millions 50 mille 200 francs moom lañu wecce moom lañu versé ci 2019 bi muy fanweeri millions ak ñeent ak fukki junni ak ñeent fukki dërëm. waaw ma koy leeral mbooloo mi àndoon ak man nag ci liggéey bi xam ne liñ ma doon jox ci fii lañ ko def mm-hmm. ñuy ñaan nag bu déwénee. di ko ñaan si ab yu mbàkkim faa Fallou mu ñaanal ñu ko ñu ku fi teew ren rek bu déwénee nanga fi teewaat dara bañ laa jot yàlla musal ñu musal ñëpp bañ fekkee waat ko te képp kenn ku ne li nga fi wees ren bu dewee déwénee nga weese fi lu ko ëpp fuuf ñu fekkee ko ci barke borom Touba jërë ngeen jëf soxna si nee na liggéeyu renam sant na ci yàlla ndax daaw fa mu taxawoon bu fa yemoon sax neex na waaye yëg na ni yàlla farle na ko ba mu weesu ko nee na li mu jële woon ci bolog bi ci 2019 bi mi ngi toll ci 740 bolog 740 bolog yi boo ko jaayee 37 million lay doon mu jëlewaat fa yeneen 10 bolog yoo xam ne si ay bolog yu 12000 la bu ko jaayee six millions lay doon mu jëlaat fa téeméeri carte de membre yoo xam ni benn bu ci nekk jaay na ko loolu boo ko boolee téeméeri carte de membre bu ne junni cinq mille la nee na loolu moo di ab liggéeyam ren waaye dafa am lu taw féexelu ci am loo xam ni néewaa na les ko dégg ci mbooloo nee na am na téeméeri junni yoo xam ni ay góor yàlla ñoo ko jaayante teg ko ci loxoom ngir doyloo ko participer ko ci Touba ci kanam te daggluwuñu ay rosi jënduñu ci carte muy toll ci téeméeri junni neena lool lépp nag neena na bi mu ko boolee mi ngi nekk lépp 46 million 46 millions yooyu kon. Touba ci kanam moo ko wara a rembourser waaye yoreelu leen 15 yoreelu leenu këyit loolu la waxoon ni naa leen ko leerale noonu bi mu demee ca ko eh, ca eh, bureau ba bi ñu seetee kontam ba réglé ak moom ba noppi yoreelu leen dara nga xam ni suba bu jant bi fenkee lay tàmbali liggéeyaat ak ñoom nam doon liggéey ak ñoom yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba gën a dooleel gën ko wéral ci barkeb sëñ Touba. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag di gërëm mbooleem soxna su fi teew soo xam ne yaa ngi xëy bis di sonn yor sa carnet fukki junni sag weer nga fexe ba am ñu si dagg nga doogu si Touba ca kanam li Serigne Touba waxoon genn kilifa ku doon siyaare si dikk ki yor ab junni kii yor ab ab téeméer mu wax ne Serigne bi wax ne dërëm bii mooy seere junni bi ngir pas-pasu borom junni bi xañ na lii day wane aw yoon lag ngir Touba ca ni mu doxee ni mu nekkee lu leer waaye ak concurrence du ëppante daraja du lenn waaye nag yëfi yi moo demee noonu waaye ki weesu téeméeri million ak ki sonn ba am fukki junni weesu ko chaque weer ñoo yam benn yéene ñoo yem benn pas-pas tey ñoo bokk ak ak pay kon yéen ñi fi teew ñëpp muy góor muy jigéen fu waay mën di jógee si biir réew mi ak fu waay mën ne si biir dëkk bi di sonn sëñ Tuubaa mi ngi teg bët si yéen suñ baara mën na leen tudd kenn mën leen may tudd waaye suñ tubaab mi nga xam mooy moom lépp moom du leen fàtte du leen fëkk du leen bàyyi bàyyi bàyyi ginaaw kon yéen ñi wes téeméeri junni ak ñi wes fukki junni ñoo yam benn benn benn yéene ñoo yem benn pas-pas kon ñi ngi sant soxna ak fu mu mën di nekk si Touba Ca Kanam ñu ngi leen di jëfalaat bu baax a baax a baax a baax di sant baax soxna Fama Ndiaye Baye Fall di sant soxna yi fi teew yëpp di leen xamal na kon nag ah ñi ngi dëgg ma amu bees muy 2020 ñu ngi ñaan si barkat sëñ Tuubaa ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim te ginnaaw si alhamdulilah rabbil alamin jëmm yooyee nga xam ne nag moom la sëriñ Tuubaa doon ñaan boroomam ne ko li ma bëgg ci sama dëkk bii ci Touba nañ ma ko fi defal jëmm yooyu mën nañoo jàpp ne ñooy Touba ca kanam duñ ay malaayika duñ ay jinne ndax sëriñ Touba moo wax ne waqadi hawaa'ij allazina daamu fii xidmati yow yàlla na nga faj aajo yi ñi sax ci dama liggéeyal te benn liggéey bu gën a kawee liggéeyal sëriñ tubaa ci dëkk bii amul inna allazina saarahoo fi xidmati falahumu diyaara wasal jannati ñi sax ci di ma liggéeyal yow yàlla bu ñu faatoo bu ñu dëkk ca sancaane àjjana ya nañ dëkk ca fas ca jumaa ja nga xam ne bu ma ubbee gis leen loolu la sëñ tubaa ñaan ci ñu koy liggéeyal sëriñ abibu nag wax na liggéey boobu nit ak jinne ak malaayika ñépp ci bëgg a bokk ndax ba yàlla wanee Serigne Touba jumaa ji sëriñ Touba nee na malaayika yi laaj nañ ko ko sëriñ bi gàntal nee na jinne yi ñëw nañ laaj ma ko ma gàntal booba ñan laa yéene woon tuyaaba ji mooy doomu aadama yi nga xam ne ñoo jébbalu ci man. kon nañu xam ne liggéeyu Touba ca kanam jinne yi buñ ko mënoon a jot nit ñi duñ ci jot malaayika yi buñ ci mënoon a jot nit ñi duñ ci jot kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nu sëriñ Touba baaxeelee boppam ba teg ko suñu loxo moo tax sëriñ Habib wax ne liggéey bi sëriñ Abdou am na lu mu waxoon te loolee sëriñ Abdou waxoon moom la bëgg ñu daloo ko ci atum deux mille vingt ndax fi mu ne yaakaar naa ne deux mille vingt benn bis a ciy des wala ñaari bis te jàpp ma ne Touba ci kanam dana ci dajawaat ci deux mille dix neuf daje bu muy amaat mille vingt lay doon sëriñ Habib nag ne wax ne daa bëgg deux mille vingt doomi sëriñ Touba yee koy ubbi. doomi Serigne Touba yi koy ubbi nag mooy dafa am na at ci njaareem sëriñ Touba bi mu nekkee njaareem ci natt yi ko yàlla doon teg ci at mu jot mu teg ko ab nattu am at moo xam ne teg na ko ab nattu ci fukki doomam ak ñett yoo xam ne génnuñ bal sa ñoom ñëpp njaareem lañ wàcce ab liggéey te ci ñetti weer ak ña gën a gudd fan am at lañ am ñooña ñëpp xuru mbàkke lañ leen denc am ca koo xam ne Serigne tubaa daa wax ne. ma leen di wax sama tuut tànk yi nga xam ne dañoo faatu ci ñetti weer ak ñi faatu ci ñeenti weer te lu mat fukk ak ñett faatoondoo ci menn at mi loolu doomu aadama ju ñàkkoon sa ñetti doom ci menn at da nga wax ne dañ maa liggéey wala catama topp wala ñàkkut lu dugg sama kër sëriñ Tuubaa nag fukk ak ñettam ñooñu faatoondoo menn at da cay sant yàlla ci fàttaliku gi ko fàttaliku ba bind ñii jaarale ko ci moom ba noppi jëlaat ko ma di ci wax kenn ñu di ko wax sëriñ Abdou Salaam kero biñ koy denc booy ñëw xuru mbàkke moo ne ci wetu armeel yi sëriñ ci wetu raay bi aboubacrine ma nga fa sëriñ tubaa daf ko jullee ba noppi daaj ko ci gaal ne yanu leen ko yëtal ma ko sëñ mbay jaxate di maami sëriñ abibu fii ngeen di àgg it bu mu laal suuf daal di wax ne abdou salaam li ko andi woon jamono mooy def maa bëggoon a le ci liggéey bi ba mu dikkee fekk lépp mo li ma waroon a def ma def ko mu ne ma naa la jiitu ji yowmal xiyaam su ma demee toog ci barsàq ya ca buntu bàmmeel ya ku dugg ma may ko ndox mu naan ba ba ngay ñëw yow kon kooku kenn la ci kenn la ci tuut tànki Serigne Touba yooyu tuut tànk yooyu nag am na ci fukk ak ñaar ñu nekk Daaru Alimul Xabiir kon mu fakk si fukk ak ñett ya nekk de Xuru Mbàkke am na ci ñoo xam ne ña nga Mbampana am na ci ñoo xam ne ña nga faneen Serigne Abibou bi ma ko limee fanweer lañ ak benn Serigne Abibou nee na ñooñu la bëgg musta dégg ku leen dagal aw kart bokk na ci soxna ma Kunta andi ñaar téeméeram mbooleem koo xam ne doomi Sëriñ Tuubaa yooyu bu ñoo fekk woon nga daggal leen aw carte na leen sun ñaar téeméer fekk nii jigéen ñi nag soxna Tahiratu soxna Maskuratu soxna Muhsinatu soxna Mominatu soxna Maymunatu soxna Khadijatu soxna Fatima ñoom ñëpp soxna Bintu yaa leen di daggal ay carte yaag ñi nga àndal sëñ ña bu nee na na ko seeni ñaar téeméer fekk fii mu ñu ubbee ko 2020 2020 daal daa bëgg ñu njëkk a daggal ay carte doomi Serigne Touba yooyu jiitu ju woon bañ xam ne ñoom bokk nañ ci Touba ca kanam léegi nag loolu la Serigne Abi bu ne na gaaw mosa ko jàllaat ci wax ji kon képp koo xam ne doomi Serigne Touba yooyu sëriñ bi nee na nga jël. moo tax Serigne Abi bu nee na mi sant bépp membre boo xam ne bokk nga ci Touba ci kanam nooru daaree ni Touba ci kanam di leen ñaanal nag atum tubaab mii ñuy dugg ndax atum jullit romb nañ ko ca la ca tam xarit ga. waaye atum tubaab mi ñuy dugg nga xam ne ci lañuy dagg carte yi weer mille francs ñu jaayanteel doomi sëñ Tuubaa yooyu nga xam ne kenn ku ci nekk sëñ Tuubaa bu la waxee ba ma Abibullahi mi ñu tuddee sëñ Abibu mii mu bokk ak Serigne Touba baay soxna fa soxna jaaratullahi Mariama bu sa jur ko juróom-ñeenti weer ci kaw suuf la sëñ Touba am Mamor Anta Seli jóge Mbàkke babal dem sanc xuru Mbàkke yóbbaale fa sëñ tubaa mu toll ci juróom-ñeenti weer mu ànd ak soxna jaara fukki at Mamour Anta Sëli am na ko xuru Mbàkke sëñ tubaa am fa fukki at ñu soog a dem Poroxaan foofee la soxna Fatima ganee àdduna foofee la sëriñ Abibullahi ganee àdduna Abibullahi mi topp ci sëñ tubaa Fatima soog cee topp sëriñ tubaa nee bi ma nekkee ci géej gi fu ma toog fekk na ma fa na ma su ma la mujjoon ginnaaw doo wéet lu tax nga bàyyi ma xuru Mbàkke may may wéet soxna jaaratullahi Mariama bu sa nee na Serigne tubaab mii ngeen di yéem ak kii maanaam gu réy gi bu Abibulahi dundoon ngeen xam ne du como ndax nee na diirub may ànd ak moom te feeñagut jamono bu tàkkusaan jotee waqafam fi ñaar fukki isibat ak juróom su koy jàng damay génn dem ca mbooloo ma ndax damay bañ ñu dékku kooku mooy Abibulahi moo tax Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne Abibulahi xuru Mbàkke gaar bu ñu muur la ku amul muur doo fa teg sa tànk foofu la Abibulahi tëdd foofee nag la Abdou Salaam tëdd mii ma lañ doon wax Abdul Khoudous ma ma topp ci ma sëñ ma mag Serigne Saliou ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne boo demee Xuru fekk leen fa tey ñuy ay leeri Serigne Touba yoo xam ne kenn ku nekk matoon nga jamono feesoon nga jamono sëñ Touba amut gone amut mag dañu wax nag ki gën ci doomi sëñ Touba yi nga ne ki ma ci xam doomi sëñ tubaa gënantewut dañoo magante benn poids bi leen sëñ Touba leen atte kon sëñ Abibu nee na soxna Bintu moom sëriñ Abibu nee na yaag mbooleem koo xam ne jigéen nga ju nekk ci Touba ca kanam moo xam mu yor ab kuréel moo xam muy kuy coobarewu di dagg aw kart moo xam ku leen di may ndox moo xam ku leen di tàngalal kafe jaar ci soxna njaxat moom Cheikh Abdoul Ahad jaar ci soxna Fadja moom alaaji Baara soxna Mbaye ak Jum ak mbooleem ñi ñu bokkal soxna Joor Gay ca Mbàkke ak mbooleem ku ci bokk sëñ bi bu nee mi ngi leen di ñaanal kenn ku ne njaboot ga nga am ci kër ga nga ne yàlla na ko ñëpp dégg te dégg ko ci lu baax. waaye yéen ñii dañuy wax suñu doo xam dëgg la ci yéen ñii ma ne xaas yi bés boobee ak la mu waxoon ci bés boobee képp kuy teew saa borom tàggale bàkkaar ak bekkoor fay déwén maa ngi kenn bañ fi maa ngi ñaan ku fi indoo aajo aajo naa ko ci nopp Sëñ Fallu dana fa leewal bàkk Sëñ Tuubaa sagal ngeen Sëñ ko Sëñ Tuubaa dana sigal dana sagal kenn ko ne ci yéen yaa xam la indi yaa xam la tax a jóg sëñ Fall yi dugal naa ko sa nopp bi dugg loxo sa nopp sëñ Tuubaa mi nga xam ne ko dugg faju Tuubaa ci kanam daal bu kenn manqué fekk déwén na ñëpp am aju sa aju faju ku fay na wér na wér tànk yi métti yeeg ba di métti yeeg bopp yi métti yeeg lii faj lépp jabet ak isma tension ak isma ak lu kenn xamut lépp da bàyyi julli bàyyi murid yi ke kees gi daal ku fi teew koo boo génnee koo taseel koo koo kum yàlla yàlla jégal loolu nag murid murid laa nag murid daamu mën naa dem dem naa sama yoon bu yàgg soo yëg si jox yëg rek ak sëñ Bamba sëñ Bamba fay aju ñëpp. dëgg la maa ngi waxal la ñii kay bëgguñ ku dul yow yaakaaruñ ku dul yow soxluñ ku dul yow kuñ buñ génnee fii buñ génnee kees gi nga xam sa kees yi sëñ Tuubaa yu tëddee la ko. tàmbalee ko si ñu Muntaxa mi nga xam ne murid mag bi ak ñi seqal sëñ Tuubaa ñëpp ak fu ay su jëbbul te yàggal sëñ bi kees gi ku fi génn koo te seel kooku kum seel ba yor àdduna sëpp nañ jégal ñëpp maa ngi leen ñaanal baax li ma la yéene yàlla naa ci jiitu wax ji dañuy wax ne ku ku kuñ tudd sa rab nga daanu ñun dañoo am lu Sëñ Tuubaa bëgg lu moom yaakaar lu moom itam ndax dañoo jébbaluwaale loolu dañoo jébbalu mais ndaxte jul lañ jébbaluwaale ñun kon amuñu yur yéen rek am yur yi loolu boo xam si wàllu gas wax na ko léegi rek ay alxuraan mën a wàcc leen tudd yéen kenn mu ci dara alxuraan dafa ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa góor ñi ñoo jiitu jigéen ñi waaye tuwaa ci kanam jiine moom an-nisaa qawwaamuuna ala nisaa ala rijaal ñu war a wax kon yéen a jiitu ci góor ñi kon na ngeen dem faw góor ñi nañ jóg ñu ñëpp a jóg leen tey jii di jàll ci yéen ngi ñëw toog ñëpp ñu lay siñ tuwaa léegi ñoo ko ci kon nañ góorgóorlu te am jom dem na ci lu nii waaye naka a a mën góor ñi ci góor ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi ko dugal ci fur boobee sëñ jaar soxna jaar ko génn ci biir defal ba liggéey yàlla kon nañu xam ne yéen sooy mukk lépp lu góor ñi liggéey dañu ko jox góor ñi nag bàyyi nañu topp ci sa ginnaaw di jaxe rek waaw lu am jox leen ko dañu jox seen doole jox leen seen alal loolu muñ ci dara mënuñ ci dara yéen ko da ngeen war a joxe li am rek ñu jox leen ñu am waaye toog leen yéen dem leen toog rek yéen daal jigéen ñi toog leen suñ tuwaa wati bu leen rek góor ñi dañuy liggéey ba nga dee di ko jox den jox seen alal den jox seen doole duñ ko mën a faj wasalaamaaleykum wa rahmatulah wal ya tarxiyatan wa hubba wa kun wali fi layaati walada wa fi lqabri wa fi lriqada wala tasali ala fi عافسا واجبا وراضيا